Antoine Félix Abdoulaye Diome Abdoulaye Félix Abdoulaye waaw li tax ma koy bàyyi li tax ma koy nuyu politique ma ñoo bokk bàyyi li tax ma koy sama xalifa général dafa gaañu muy Baye Abdourahim Seck waaw corps bi nekk Maroc mu war nekk faa nekk léegi samedi ak dimanche duñ liggéey téléphone am fayul ak doomu xalifa bi Ibrahima di ko jaale mook Ibrahima mook Ibrahima ba kool bi ni duggee Sénégal ni mu duggee Sénégal kon kooku ba lu defee lee lu baax. da nga koy wax da nga koy wax. waaw bàyyi seen xaar doon wax naa ne. Hmm. ba lu defalee njëkk. Hmm. su ko loxo mun tafay bu làmmeñ noppi. ñun ci askan boobu lañ bokk. parce que politique ma nag. waaye lam def nga ngay politique mais lam def laa wax. bu ko keneen defee nit ma ma wax ko ndax amu lu sunu baay boobu xalifa général de Thiénaba mu taxaw ko ba mu ñëw ba mu ñëw ba biñ ko robee ba bi ñuy rob mi ngi déggante ak ñoom ba pare ñu tourné ñëw jaale tamit. am na solo kon Anta Fils Diome. waaw sant nañ ko ñun waa Thiénaba yëpp. à part ci sama tur ak turu xafe général bi sant mais santaan naa ko tamit parce que man noon laa mel man ku ma defal lu baax moo ko ku ma defal lu baax tamit mun naa ko bañ a wax it mais wax li nga def moo tax Racine Talla mii moo hmm. xam ne la carrément man maire bi gisuma ci sama bopp sunu asag naa bi tamit gisuñu seen bopp waaw na leer bu dee président moo fi teg na koo wax ak moom wala mu jëlee fi maire ba moom a ko waa gox ba ko fa teel waa gox ba nag fi mu toll nii ah loolu laa foog ñu ngi seen liggéey ñu ngi seen liggéey bopp loolu beneen spécial bu ñuy wax la en tout daal comme li ma la wax rek si la séeri na bu jaan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax léegi fi may jeexal ak yow nit ku ah, baax damay jeexal ak yow accident yi bëri na bëri ki dem mhm. gis nañ li xaw diggante Diouroup ak xaw ma fan ñu ngi sax wax set morts sur le coup mais léegi léegi dem na treize morts soog yi bëri na bëri na te yow nekk nga apprenti nekk nga chauffeur lu xew ci tali bi maanaam chauffeur si ñoom la wala tali yi ñoo baaxul wala lan moo xew non ñi ñuy joxe permis benn mais diggante jurub moom foofu jurub virage jurub. waaw mas naa fekk soog boo xam foofu moom ba may lang ba tey noonu la mel. foofu moom ba may lang ba tey noonu la mel war nañ cee def ay ñaan wala ñu toj tol ko mais à part loolu moom chauffeur ni ñuy joxe permis léegi màgg dawal dafa am màgg dawal am ñoo xam oto école sax duñu ko jàng bu baax génn jox leen transport ñu dawal. ak boole kook tëli bu tooy xepp nawet comprendre boo buy buy doog a taw ba nawet bi jeexee foo laalee pétale mu wër la. Hmm, day da lay wër munoo taxaw. boo freiné mu la du ma toog. li ci mën dëgg-dëgg bu dee oto manuel sa tànk gaaw sa loxo gaaw yaa ngi ci cinquième quatrième troisième deuxième première frein moteur moo ci des. bu fekkee aay nga boo ko xamul nag léeg-léeg da ngay jékki-jékki ne xas nga def nii wala nga nekk fa di kilika bàyyi oto bi muy ni soog moo tax oto faw nga jàng ko. ci oto école. faw nga jàng ko. auto école lañ mënoo ci jàng benn fan. ñaari maanaam li ngay wax kay laan tey école la li ngay wax nii. xam-xam na ko. wax téere. nga ne daal bu tawee ba ba ba ba ba tooy ba tooy ba tooy xepp. waaw gasoil bi rek nekk ci kaw. boo laalee pneu yi ci ginnaaw yi ci kanam moo ñëw ci yi moo dem ci kanam romb la boo freiné oto bi nii lay def. di baajewu nii lay def léegi nag foofu laajul frein léegi foofu boîte bi la ak bi mooy frein bi sa tànk day gaaw sa ko gaaw mais xanaa kon levier moo ko war a mën a. moom laa la wax moom laa automatique. waaw da ngay teggi sa tànk. waaw am na fooy selecté automatique bi selecté ko boo ko selecté. doo amati vitesse mais di am première. waaw est-ce que xam fi ma waxee. automatique dafa am dafa suuf dafa am foo am dafa am dee pour pour départ première ba ngay soxla nag bi naree daanu mu nekk frein moteur parce que amul embrayage frein la am mais day gaaw da nga koy selecté da ngay bës bouton bi rek mu génn nga yóbbu ko première bi. dee bi doo ko soxlaate parce que dee bi mooy démarrer. jëkkatil dee bi dootoo ko soxla. waaw parce que loolu tam ay jàngale ko léegi la mais loolu am na ñu ko yooyu jàng dama lay leeral rek ci wàllu accident yi. parce que fi nga jaar ci apprenti fu ne nga daw fa. te buy daw tamit léeg-léeg bale yi dañ koy waral daa am ñoo xam ne amuñu bale dañuy jaay affaire ancien bañ a taxaw jël soble di ko ci def ak yooyu. soble ndox soble waaw boo ko defee soble ndox du ci taxaw dëgg dëgg dëgg nga mën a gis mooy gën a sori soble bi parce que bu ñu li ngay gis mooy catu bi te cap tali li ngay gis bu fekk yaa ngi daw taayal bañ a taxaw pour dafa fomb sa kii léegi yeb ay client surtout ñi ñiy dem Kaolack ak Tamba ak yooyu noonu léegi li ngay gis day tuuti bu dee ku mën a dawal nga dëgg catu pare-brise bi ngay gis te catu pare-brise li ngay gis ak li ngay freiné boo freiné bañ cee dal mën ngaa freiné bañ cee dal code code euh, code volant oto bi daanu mën ngaa bañ a freiné dal ci ñëppay dee ñu nekk ci kanam loolu indi yéen sog mën a defal bale tamit ci la bokk jon glace yu leer fomp ko oto bi bañ a lay ci biir taal sa lumière bu baax faari baax kodi baax boo gisul loo xam dóor kot soo gisul loo xam ni nga leen kii nga dóor faal appel ñaari yoon bu jegee nga def nga regretté boo regretté boo xam ne oto bi sedd na munoo ci dara munoo koo téye nga cëppeelu maîtriser sa direction man def naa ko barki dem yoonu puut bi benn jakarta may génn gisuma ko mu daw jël ma topp sama pëli topp sama pëli topp sama ànd moom ci mboy ànd ak moom ci mboy hmm. waa ji daan na bu yàgg ma départ benn boo xam ne dañ li ma doon daw génn ko ñaari yoon li ma doon daw génn ko ñaar yoon waa ji mer rek waa ji daal ma daal di jëm jëm ci benn gendarme ne oto bee dem daa rey nit. te yow laaloo moo yow fekk am na benn pël fuuta bu taxaw foofu noonu di seetaan léegi de rek waa ji rek waa ji jékki rek waa ji jékki-jékki ma ne ko nañ demaat ci waa ji bi ñu demee ci waa ji mu munu ma nañ dem foofu quoi gendarme bi ak motaar bi. boobu lañ dem dëju bàyyi Talla Cissé ak bàyyi sëñ Mamour Cissé Canaba di ko jaale ji ma ànd ak Pape Diagne ak Pape Ndoye rek ma tourné ñëw. benn pëlëfuro bu teg woon ne ma maa yem ci affaire bi waaye kii ku mën a dawal la beneen meer tamit wuu sama doom yow ka ne la ñaanal rek man ko man de waa ji ma àndaloon dafa am ko ko dab ne ko daaray nit rek kooku ne day fen kii moo ko moytu euh, moto bi jaar ni ci tool la jëm fo waa ji tamit borom moto bi tourné waat yem ci man ko voilà heureusement waa bu yàlla nar a leeral rek man ko nag sa waay gendarme mu man ko def nga erreur kii la dangaa rey su ma yoroon bi naa ko topp ba dinaa ko tarrel ni ma tarralee dafa am ñoom dañoo soxor. mais yow nag doo daw ndànk. non du ma daw ndànk. lu tax. tàmm da nga da ngay jàngale dawal nii tàmm ko. loolu wax dëgg yàlla nga ma dugal soto benn yoon keroog wax dëgg yàlla xama boo boo ne da ngay daw ndànk ma toog ci télé bi di ko wax am daw ndànk lu tax am na fam a daw ndànk tàmm ma ko mais taw ma ko tàmm ko mais oto nag da ko war a am na foo xam ne waroo fa daw na di xelu nag non tàmm ma ko hmm? tàmm ko loo ko day leer tàmm ma ko la moo tax tàmm la moo ko teree tàmm dama ko sax munul dawal ndànk digle sangaay sangu loolu baaxul munu ma ko ah yow kay yaay digle sangaay te doo sangu non non wax naa leen oto parce que yow doo daw yow nee na dee leen daw ndànk dee leen def lii te yow doo def sama xam-xam bii ma yor mënoon naa ko daw ndànk itam naa ci la bokk nag daw ndànk dal ndànk lañ wax daw bu baax dal bu baax wallaahi munu ma ko di dem dëju sam papa yab naa ko di dem dëju sëñ ma dikka seeg kajoor boobu maa ngi yor sama Mercedes ma gën teewoon laal laal laal laal cent quatre-vingts yi. ay guy laal cent quatre-vingts bay wokk deux cent yi. dem di tourné <laughs> xam naa ne paa bi xam na li may dox bari na bëgg te sa paa bi dama nañ jaar ci orékal bi. ma ne ko waaw lu yéeg paa bi nañ gaaw damaa yaakaar ne mu ne ko nañ jaar ci orékal yi jaar yow paa bi wàcc na bismillah jël course jàpp julli toog tuuti. defal drive bi waaw ko paa bi nañ dem mu ne ma xaaral tuuti tuuti ngay xaar. wax na dëgg ma tegal ko ci mu ne ma xam nga lan la. dawal ndànk wala nga wàcc oto bi. Ah, wax na dëgg di wóorul di <laughs> ma. waaw moom sama xarit la. dawal ndànk ma ne ko léegi cent quatre vingt mënuma laa ilaaha illallah ëpp naa wax bul xool nit ñi di ko dégg lan. ma ne ko cent quatre vingt deux cent laa bëgg cent rek doy na ci guy gi. non tàmm ko wala quatre vingt dix. tàmm ko wallaay tàmm ko. waaye ay deux cent. nga koy daw ci route yi tàmm ma ko. yow loo traversé dootoo mën a contrôler oto bi di. non dinaa ko daw dëkk bi du ma daw. non pas dëkk bi mais route yi war nga fay daw deux cent. dinaa génn yow APS wax à man xam nga xam nga ñaata xam nga ñaata laa daw laa daw laa daw Fouta Fouta kii. Fouta fan euh, Matam ma kii Podor Podor kii Podor Dakar. waaw trois heures de temps. Podor ba Ndakaaru ñette waxtu. trois heures de temps. boobu ñaata nga daw à l'heure. yàlla bu ma daan rek rek. non ñaata nga doon daw à l'heure. laajal doublage laa doon yóbbu muy bëre contre Malo Seras. fi Tidiane ànd soge woon. ba ma ñëwee foofu foofu ko woon nag ba ma ñëwee ba ci bi net. ma laal pédale fekkuma fa dara ma xam ne bu ma delloo damay daanu ma bàyyi oto bi dem ma regretté ko regretté ba mu sedd ci foofu laa dugg genre teen regretté ba mu sedd ma dugg ci teen bi. mais yow pilote nga de. gars yi wàcc ne oh maay mi ma maayataan de mi mi daro nii maa ngi nii taxaw gars yi ne oh maay na tijaan maay ta doon tijaan fii la di affaire boobu miinu ma ko woon wóor na yàlla soge foofu boobu virage bi laa ñëw ma leer ni bu ma feneen du ma ci génn. laajal doublage après doublage di nga jël. nga bàyyi oto muy bàyyeeku di yàlla tere. boobu maa ngi ci presque deux cent yu saf-sap cinquième banque cinquième banque ak collé iranien la iranien essence la iranien essence yi oyof boobu ñaari saako pétrole laa teg ci ginnaaw ndax oto bi mën a diis ndax dafa oyof ma fekk ko fa ak cinquième quatrième troisième deuxième première des ma leen damay dugg ma bàyyi ko prix oto bi bum ma ma ci kii bi iranien de min nga ko ndax defe naa ci la nga daje woon ak sa ndaw sax wala waaw ah, gën nañu wax suñu waxtaan waaye. kële kële la kee sol kap bi boo ko nee ma daw ndànk mu wax la ko. man kay man kay leer na ma. mais mais looy tàggoo ñu lay seetaan ci Equivox TV. waaw Equivox TV moom wax dëgg yàlla kontaan rek ci seet bi nga ma seet si. waaw yow it parce que bu ma nekkee yow damay <laughs> damay développé ndax nit ku baax nga. wax dëgg yàlla bu dara xewul tamit nit ku baax nga. ndeysaan suma xarit nga. parce que tamit nit ku dëggu nga tamit musuñoo wax loo xam ne ay caaxaan la. doo fi amee sa waa ji problème Lamine dama laa woo mais lu rafet nga ci wax. non Lamine daan na Lamine wax <laughs> dëgg yàlla moom wax ci wax bu rafet. mais mënoon naa la wax nga jengee ne neen. Ah, te tamit buñ buñ buñ buñ nekkaatee ci jàmm dama naan dama dama la koy xoolee. kooku ko ndax boobu damaa tàngoon moom it <laughs> Lamine dafa sob de non day liggéey rek. day liggéey mais bàyyi na liggéey boobu nag ku ko meree ci kaw liggéeyam nga ko meree loolu man dama koy wax ñëpp dégg ko. après mën na liggéeyam respecté na maa ngi moom ndeysaan nag après. waaw yéen nag da ngeen def seen kii ba pare bu ci Lamine waxee ngeen ne Lamine lii Lamine laa. waaw mais après loolu liggéey rek xam nga loolu da ngeen koy jàppee kuy liggéey. non loolu leeral la woon rek. waaw loolu ma bañ ko moom xam na man xam naa. léegi Lamine boo seetloo sama waay la. ah sa waay la Lamine sama waay la non sama waay sax la ma sa nekk Lamine sa waay la ma sa doon. loolu daa yàgg non daa am wax yoo xam ne xam nga moom daa comprendre lu woon quoi te loolu mun na am leneen loo xam ne. waaw mais loolu moom comme passé nañ ko moom yàlla na yàlla def jàmm rek man chaque jour maa koy encouragé waaw allah bu ma amee loo xam ne sax lu urgent dama la Lamine waaye génne li ma may la ko foo nekk foo nekk ma ne ko waa da ngay def ndànk nag sa ëppal gi nga war a xam nga buñ seexuloon jàmm loolu daaw moom sama waay la nit ku baax la <laughs> tey day jox làmb àqam waaw loolu am na yoo xam ne day saf-saf bien sûr te te te li muy wax waaw du ragal li muy wax des fois nii daana daw ci kaw yenn ministres yenn autorités yi ba nga naan Lamine xanaa daa leneen mhm. mais après da nga koy da nga ko ci fekk si commentaire yëpp dañ ko loolu mooy mm-hmm. liggéey mm-hmm. beneen bi mooy du nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm axlu làmb mm-hmm. di gërëm waa école Mor Faram bi yëpp Mor Faram yàlla ko yàlla yóbbu àjjana amiin di ñaanal sama benn papa Dul Jaw yàlla yàlla bàyyi ba ci kanam ku taxawu njabootu Mor Faram la di ñaanal Mbay Jaw Gana Jaw ak Modou Lo doomam parce que yëpp parce que tamit li tax ma la rëg rek daa ñàkk sens retour de Baye Jaw daa amaat Baye Jaw daa demul ñëwaat ba non demaatu demul woon sax man maa demoon mais retour Baye. yow yaa bàyyi woon Baye Jaw. non bàyyi moon woon Baye Jaw mais man maa demoon bokkut ak Baye bu ma ko bàyyi woon du ma ko jàppaat xam nga ñaan moom dafa am ci tey ngeen ñaan suba du ngeen ñaan àndal rek yàlla moo leen boole. ok nas rek dem mi ngi wax naan man dama gis baay Jaw ci combat bi ñuy waxtaan fekk mu koy woo noonu man xam man ma xam li ma xam rek noppi ku ci mel tamit xam nga euh, ku ci mel ne grand alimane sama grand la ku baax la. Alimane ban maire Pao Scott ah, mbaa Pao Scott ku baax Alimane ak grand Sila Seri Nabou Diagne mool moo la war a jox voiture bi ku baax borom naa TV. loolu dañ neex na xam nga ku baax la ku baax la defkat lu baax da nga koy médiatiser. waaw waaw. bàyyi laat noonu na géwél amul ku la defal lu baax. nga wax déggoo li ma da nga koy médiatiser. Abdoulaye day ko waxoon. grand boobu ku baax la. Hmm. di nuyu tamit euh, fi nga xam ni mooy suma koñ aseg na gàddaay aseg naa daaru. komiko. Hmm. waa Massa Ndiarème bàyyi ma kenn waa Comico daaro Xan fépp suma nit nekk supporter maa ngi lay nuyu nuyu waa Japon waa kore waa Gabon waa États-Unis sama coach sub boo maa ngi koy nuyu bu baax ñoom Joe Mama Dabel maa ngi koy nuyu Laye Ndiaye Yamou Ndiaye maa ngi nuyu Abdou Midina série amital ku baax ca man États-Unis du ma jooy lu bëri ngir Abdou Midina ku baax day ñëw may la ay yu bari te kenn du ko yëg defal ma lu bari te kenn du ko yëg aw ma fay ci moom. Abdou Medina suma xarit la. Mhm. di nuyu tamit xam nga. mooy waa Juboo waa Daaru Xam sama combat dañ ci sonn. Mhm. di nuyu waa waa Port ku ci mel ni colonel Bass kurus gii moo ma ko jox. Taaliba Seex. waaw Babacar Mbaye colonel Bass Port. douane yëpp maa ngi leen nuyu. Pam Mama maa ngi koy nuyu. maa ngi nuyu transfert yëpp Maysa Fall la grand transfert maa ngi koy nuyu Maysa Fall ma kenn koo xam ne yaa ngi Port. képp ku nekk port maa la man damay dugg port port mais ne maa moom poor wallaahi wal azim dañ may bëggee ay kilifa nag. dañ may hmm. bëggee waa poor gi yëpp maa leen nuyu. di nuyu colonel Bass bu baax a baax a baax a baax chef section di nuyu président rawaan port la nekk moom tamit nuyu naa ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñoo may bëggee Babacar kontaan naa trop nuyu sama xarit Balaña Séeri Mam Diarra. am na solo borom VIP naa la booleeg moom. nit ku baax la bëri na ñu ma koy booleel te duñ ko rëcc. baal nit ku baax la suma xarit la maa moom léegi comme li ma la wax ci sànq ci muur dañuy laalante hmm. mais après dañuy bu dee wax naa fi lu jub suñu borom la ah, ah. tey di contact Equivox Equivox di ci hmm. kontaan bu baax hmm. parce que tamit vraiment seetsi bi am na solo Babacar mënoo nekk ci euh, site bu bees nga war maa jël depuis at maanaam tey ëllëg suba ëllëg kon su ma waxaatul rek ci yow damay ragal boo léegi ñu romb ko ah kan kooku day mbër déet man ma ne doo mbër. xeer yi bon nga yow yaa gën a gën a xeer ay man man man xeer da wax ci kaw man du ma kenn xeer. xeer da wax ci kaw xalaatuma ko. daal gars yi kontaan naa développé nañu. loolu moo am solo. am di wax ne daal bu combat bi jubsee. waaw naa la may lu ma may dinaa ko may nit nag mais di nga ci njëkk quoi wala nga nekk ci digg bi rek. Eh, benn exclusivité quoi. waaw exclusivité wala mu nekk ñaar xam naa moom yàgg la mi lay doon man ak parce que Lamine moom loo xam ne doo ko may lu bees. parce que Lamine moom appel bippe rek boo ko defee boo boo bippe bu fekk sa kër <laughs> kon loolu rendez-vous ba dañuy bàyyi ba combat bi des un mois. ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm nag. waaw di jox ñëpp rendez-vous. waaw allah dans quatre mois cinq dans trois mois cinq jours. waaw yàggatul kay. d' accord ba sax seen combat ngi nii su ma juumulee. ay guy gi rëg rëg. waaw boobu combat. Marley Marley Marley Pape. Marley Marley Pape kan ne ko rénd ñi yàlla may ko ndam. waaw Marley Eumeu Sène junior. Hmm. Euh, Eumeu Sène junior waa ji. Eumeu Sène junior ak euh, Grand Mbagnick. Grand Mbagnick ñi ngi ñaan yaa yàlla may ko ndam. dëgg la Bébé Gouy Gui. Hmm. Bébé Gouy Gui ak Jaro euh, Ama Bal bi. waaw gi ñu yàlla may ko. waaw mook mook Malick Ndiaye 37 fou. 37 fou ak Bu Siteu. Bu Siteu ñaan yàlla Bu Siteu yàlla may ko ndam. dëgg ak kan sa sama école. Cheikh Super Jamono yàlla ko yàlla may ndam waaw waaw. bëri ngeen ay combat waaw sama école mbaytin yàlla na ko yàlla may dem ñi nekk sama école ñëpp daal waaw na yàlla yàlla na ko yàlla na ko yàlla def di wax ne sumay rakk la baa ngi nii sumay doom lañ dugaat man ma jaxam man def bu xam nga kañ xam ne combat bi ñëw na waaw dimanche xam ne combat bi ñëw na dimanche bis ni suba la dimanche ci ngay waaw xam ne des yëpp toog lekk tëdd nelaw kaf mbalag ree. fi mu looy looy dundee nii actuellement. nii nii. Hmm. nii nii benn euh, pour lekk. waaw. non lekk Ndeye Thiam moo indi repas yi bu ñëwee ñu këlëmtikoo li ñu këlëmtikoo rek moom lu ma bëgg rek mu ma ko moom. Ndeye moom guy gee ko ñor. moom làmb guy gi sax ñor ko guy gee ko ñor. Hmm. mooy doomu waree saar bi. ki ma tuddee sama doom bi. caama hmm. euh, Ndeye Thiam kooku guy gee ko ñor. kooku laa gis ci àdduna sama kër xool ni ñu fa nekk mais chaque jour bu fay dugal bool ñaari mbooloo yu toll na mën nañ cee lekk. kenn du war a saar. Babacar kenn du war a saar waaw war a saar wax la ci garaaw ci a saar nitu ko gaaw mën de. 9 ans maa ngi suma kër xawma lu xorom di jar. 9 ans. lépp moo koy jënd barke alxuraan karim benn bis laa dem. loolu dafa barke alxuraan barke seexu cana ba 9 mi ngi may dégg. benn bis laa dem di sob soblu ci bi mu duggee ci calaf bi jënd ceeb est-ce que jënd ma xawma ay 10 saaku ceeb xawma côté yooyu. ak ay bideel ñëw di sob soblu naan dama ko indil maire bi ceeb bi ceeb bi rawuma ko. mu dàqa génn ceeb barki alxuraan rawuma ceeb par benn benn la bi mer. ceeb bi par benn benn lay woo ni dina ko jox ba mu jeex tàkk ne ma nag na mujj tey nga defati lii. Babacar kenn du war a saar. ah loolu yombul. Babacar damaa ñëw jël sama xaalis doon def fii dix millions cinq millions quinze millions di tas war a saar woon ba ma ñëw. ne ma kër wala nga bàyyi sama doom wala nga bàyyi sama kër. loolu loolooy fulla waay. non dama lay wax lu garaaw nag téye xaalis bi ma ne ko maire bi lu muy def nii ah koo liggéey man nga xam ne wàcce laa xam wàcce nga ñëw rek nga wàcce rek. wàcce libéré gars yi man wàcce ñu ma tuddee woon gisee nas bu gisee ma bi toog day xam ne sa waay yorut am na kilote boo xam ne spécial. pàccal bu bula ma <laughs> ko solee xaa sa waay du wàcce rek wala sa waay xam ne kilote bi yorul kenn mais gisee bis bu ma nas jëlee kër gi ba tabaxal ma ko. bañ kuule rek ba ma woo sama mu ñaan ci ma dama nas buñ jëlaati avance da nga may defaraatal beneen bu mel nii man bàyyi naa wàcc. dootoo wàccee. nga xam ni ci waxin rek nga xam ni. tey am koo ku la bëgg. Hmm. am conseiller. Hmm. am am kilifa dafa baax tey ji su ma amoon kilifa. damay bëre ba dee du am birig sama kër canaba tamit mënu ma eh sa kër canaba papa ñaata koy defar avance génn mën a mënu ma na fa dem. soo fay defar nga ko. non kenn du war a saar. moo tax politique du ma mën a ànd ak ñëpp. am na ay xaritu politicien nag moo tax ñëpp duñ ma boo ko bëgg parce que moom gis nga ensemble li leen def taakale rek la leen def gis nga waajur mënoon oot yow oot yow moom. oot <laughs> du la may dara. waaw day attaqué de. non du la may dara. moom askan bee ko ñor am doon wax ne de yow bu ma doon. ma jaayal sa bakkan ma sama bakkan. parce que Rasulullah noonu la koy defee. billahi kenn du war a saar. war a saar lekkul sareelam loolu mun naa ko kitaabu. man de ba muy yor Mercedes. lekkul sareelam laa ko xam. ba muy yor ba muy yor Mercedes. waaw booba loolu xam naa loolu la commencé def social. booba dama daa xam ne room pompier moom. Wara Sarr doomam du nekk ci ci ci ci ci buntu kër gi 23h. ñëpp ci biir. doomam bu góor majeur nañ. yaa partie de voiture de partie de tout fu la neex dem doo nekk ci buntu kër ba trois h nas moo ci dem ba minuit wala une heure te su ma amee combat veille combat la te xam nañ ñu dox ci lu ñàkk caaxaan. nas benn gel la ma mas a présenté benn benn gel mooy ki jur suma turandoo nii muy fàññang essence ba lañ nekk essence Touré fii taxaw mu xaw a guddee mu ne xaaral jox la sama mbër mi ma ko nos kii la munu ma munu ma kii fàññang la ñu waxtaan zatare zatare damay kii damay woo pour xam nga munu kii fàññang la ñu waxtaan tuuti boobu la ma mas a pere teg kooku moom la takk ni tey kon Magnus ànduñu ci ay kon yow xam naa mosoo am gel de kon man man bien sûr mais bi may am gel boobu boobu boo fekk na ma nand quoi mais bi ma nekkee ngaak boobu nan ki amu woon amu woon mais après bi ma nekkee nante man dafa am ngaak am nante jamono boobu noonu moom laay dugg géej min wi génn cinq heures blouson yi nga sol ko naaju tàng wi di daw ci Pikine takk fas yi ñaqatoy xëpp saa ko yor naan la mbër mbër dëgg-dëgg du sangu nga tegale trois jours wala quatre jour ne ko saa doole jaa ngi ñëw de affaire yooyu saa saa teg saa mos benn caaj caaj caaj ku ñuy wax caaj ki dëkk ñoom Sarenzo quoi Thiaj ki sa Sarenzo. waaw Sarenzo bi gaañu te yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana quoi. tam nekkoon bokk bokk benn. Ah, xam nga a ak ñoom kii ak ñoom. waaw Sarenzo kër sa Sarenzo. waaw Thiaj dégg naa daa ñëw saako na ko boo bëggee am doole da ngay toog 10 jours doo sangu. tey entraîné. déglu ah histoire nag xaw ma dëgg la am dëgg gars yi nag gars yi ah Thiaj ñëw na ko saa maa ngi ci 9 de gaañ. ko moo tax solos bi am doole. loolu kenn saako yor saako yor ay bitis rek lay def. xoolal man. Ah. man man daf may manqué man dama koy manqué. ba biñ leen a jeg daal jékki-jékki ndeysaan buñ toogee entraînement ba yàgg. morfar man ko ginnaaw day jékki-jékki ni morfar réer la mbéj ci ginnaaw tournée di la joxoñ moom ab ko neex bi maanaam. kaf mbalak kaf mbalak mbalak moom jàppul dara muy dara. bu njëkk ma doon tere naan ko mbër. bàyyi lekk ci école bi wala mbër mu ah mbër amul problème sànni mbër dee sol kawas amul problème. moo tax kuy wax ci moom danga nga xamul. nit ku baax la nit ku baax la vraiment tamit. Ah, di ñaan yàlla jàmm léegi am nga fi ñaata benn. ah déet déedéet guy gi yaa ngi ne war a saar xaw ma lan lan lan la. ah waaw est-ce que ñaar la. non ñaar la. ñaar ah, guy gi waxal leneen. non ñaar la am na ñu may bëgg a mayaat nag ma xam naa yooyu nga dégg. déet man kay dégguma. am nga may bëgg a mayaat. ak bi ma silaa may yoof aba abala ak bi ma silaa maire yoof may yoof silaa séer na bu jaañ ah, borom naa TV waaw yee guy gi kontaan ah, naa maa la gën a kontaan yàlla na jàmm yàgg yow moom barke Seydina Mohamed da lay ñaanal macha allah incha allah léegi bu la si laa joxee pot bu la si laa joxe voiture bi waaw ma boole ak sama booy boy Abdou Baaxee waaw moom moo boole ko Abdou Bara sama booy bi yor pneu yi mu gisoo moom woo pour ñu dem am yu ñu defaree. Abdou Bara la pneu yi. waaw bu dee wàllu ngelaw bi. waaw bala ñaa jox la ventilo. ok mais si la moom bu la xëtee moom. waaw wallaahi bu la xëtee xam nga ni ngay doxee. waaw mais bu la xëtee ni ngay doxee. damay gën a njool. non yow si la kenn du si am na solo kon si la kontaan ba beneen yoon gars yi guy gi la woon Equivox TV ak Babacar xulle moo ne woon ci caméra bi ak hélas maa ngi ñaanal jàmm leen jox dig daje beneen yoon ak beneen ak Equivox ak Babacar moom pur et dur lamb 100 pour cent du mën a ñàkk ba beneen yoon.